soxna Mbène Mbacke soxna Mbène Mbacke mi ngi feeñ jamono nag ci atum 1908 ci dëkk bii nag maamam nekkoon di ca yéen joloofa ci 1908 boobu nag la feeñ jamono muy doomu soxna Assuloo ak cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke soxna Mbène Mbacke nag bi mu feeñee jamono nag ci atum 1908 ci dëkk boobu nag di ca yéen joloofa waajuram nag cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke mi ngi ko faye nag magam soxna Assu Mbacke Mbacke Kajoor di doomi Sëriñ Tuuba Cheikhul Xadim soxna Assu Mbacke Kajoor moom nag la cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nag faye nag doomam ji ñu koy dàkkantale nag waajuróom muy soxna Mbeen Mbàkke Falilu doomu soxna Assuloo soxna Assuloo nag di doomu sëriñ Ndaam Abdourahmaan Loo sëriñ Ndaam Abdourahmaan Loo nag bokkoon itam nag ci jàmbaar yi nekkoon nag ci ginnaaw ku baax ki sëriñ Tuubaa Seexul Xaddiim def lu takkoo takkoo takku nag ci yoonu murit jàngal itam nag doomu Seexul Xaddiim nag yu takkoo takkoo takku waajuróom wu jigéen nag moom soxna Assuloo soxna Aminta Mbàkke la soxna Aminta Mbàkke doomu Maam Mor Sali Mbàkke la soxna Aminta Mbàkke soxna Faati Bintu Mbàkke ak Maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke ñett nag ñoo bokk nag soxna Faati Isa Diop ak Maam Mor Anta Sali Mbàkke ñaari jëmm yooyu nag ñoo meññ doomu Cheikh dul Faadal mbakke bi di soxna Mbeen waa waajuróomu góor nag di Cheikh dul Faadal Mbàkke doomu Sëriñ Tuubaa Cheikhul Xadim la nekkoon na fi itam nag ñaareelu xalifa Cheikhul Xadim moo sanc itam nag dëkk bii ñu tuddee Ndindi mooy borom màggal gi ñu tuddee nag Kazu Rajab am na nag ñu mu bokkal soxna Assuloo ak moomu dul Faadal Mbàkke nag moom soxna Mbeen Mbàkke Falilu mi ñu mën nag soxna Sooda Mbàkke Lo bintu cheikh Mamadul Faadal Mbàkke sëriñ Moodu Maamun Mbàkke ibnu cheikh Mamadul Faadal ibnu soxna Astou Lo ak moom mii nag di soxna Mbeen Mbàkke bintu cheikh Mamadul Faadal bintu soxna Astou Lo laataa ñuy xuus sax ci mbirum turandoo soxna Astou Mbàkke Kajoor wii nag di soxna Mbeen Mbàkke ñu wax leen nag njaboot gi mu bokkal waajuru góor ak waajuru jigéen nag ñoom ñooy ñaan soxna Sooda Mbàkke ci 1912 nag la feeñ jamono bi mu matee dem kër sëriñ May nekkoon taawub ma Masamba Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ moo du May nag benn bant rek lañ am soxna Moominatu Mbàkke am ginnaaw bu mu jógee nag ci loxoy sëriñ Moodu Mbay Mbàkke moom soxna Sooda Mbàkke ibnu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke lañ ko jox nag sëriñ Ousmane Bousso moom sëriñ Cheikhu Bousso mook sëriñ Ousmane Bousso nag amuñu nag ak njaboota seen rakk ji nag di sëriñ Moodu Maamun Mbàkke moom itam nag ci doomu Cheikh dul Faadal Mbàkke yu mag yi nag ci la bokkoon nekk na fi nag ba tàmbalee jàng nag xam-xam ci bi mu tolloo nag ci jàng xam-xam nag la génn àdduna soxna Mbeen Mbàkke mii nag ñu fas yéenee waxtaane tey jii bi mu tolloo nag ci jàng alxuraanul karim la ko maamam nag sëriñ Tuubaa seexul xaddim jëlee nag ci waajuram nag cheikh mamadul faadal mbàkke jox ko nag soxna faati jaxate muy waajuru sëriñ tuuba cheikh saalihu mbàkke soxna faat jaxate nag moo ko jàngal nag moo ko yar moo ko itim nag tarbiya lépp loo xam ne ni itim nag liggéeyu jigéen la soxna faati jaxate mii nag moo ko def nag ci doomu cheikh dul faadal mbàkke bii muy soxna mbenn mbàkke fàllilu bi soxna mbenn mbàkke fàllilu nag tollee nag ci dem kër la sëriñ tuuba seexul xa sàkku nag ci soxna faat jaxate ñu jébbal ko nag maam sëriñ buso moom sëriñ seexu Bousso ci dëkk bu ñuy wax nag Mbusoobe Bulyeer yi nag la ko yóbbu woon Mbusoobe Bulyeer yi mi ngi nag ci penku Taayifa gox Cheikh Mamadul Moustapha Mbacke foofa nag la soxna Mbeen Mbacke nekkoon ak maam Serigne Bousso mii mook maam Serigne Bousso nag moom Serigne Cheikhu Bousso nag am nañ ak njaboota ñu man cee ràññee nag soxna Faati Bousso ibnu soxna Mbeen Falilu ibnu maam Serigne Bousso soxna Xadi Bousso bintu soxna Mbeen Falilu bintu maam Serigne Bousso ñaari bant yooyu nag la am ak maam Serigne Bousso ginnaaw bu maam Serigne Bousso nag génnee àdduna lañ fob nag soxna Mbeen Falilu mi jébbal ko nag Serigne Mortala Fall nag bu Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina mook sëriñ Mortala Fall nag bu Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridina benn bant nag lañ am muy kam faye nag maamam ja sëriñ Ndaam Abdourahman Lo di sëriñ Ndaam Abdourahman Fall ñetti bant yi nag la soxna Mbeen Mbàkke Faliilu am ci kër yim jaara ñu wax leen nag njaboot gii mu am nag ci kër yim jaar nag ñoom ñooy ñan doom ji nag di soxna Faati Buso bi mu matee dem kër sëriñ Moodu Xabbaan moom sëriñ Ahmadu Ndumbe Mbàkke nag lañ ko jébbaloo soxna Faati Buso mook sëriñ Moodu Xabbaan nag benn bant nag lañ am muy soxna maam Faati Mbàkke soxna maam Faati Mbàkke moom nag bi matee dem kër lañ ko jébbal sëriñ Abdul Akim Mbacke moom sëriñ Mouhamadul Bachir Mbacke moom xaadimu rasool soxna maam Faati Mbacke mook sëriñ Abdul Hakim nag am nañ nag ak njaboota ñu mën cee ràññee nag sëriñ Cheikh Ahmadou Mbacke mi wuutu sëriñ Abdul Akim Mbacke sëriñ Basiru Mbacke mi sëriñ Abdul Akim nag fayee nag waajuróom ak sëriñ Moodu Xabbaan Mbacke mi mu fayee nag waajuru soxna maam Faati Mbacke mii beneen doomu soxna Mbeen Mbacke Falilu bi ak maam sëriñ Bousso di soxna Xadi Bousso bi mu matee dem kër sëriñ Mbacke ka moom sëriñ Cheikh ka moom sëriñ Sàmba Tukulóor ka nag lañ ko jébbaloon soxna Xadi Buso mook sëriñ Mbàkke Ka nag am nañ ak njabootam ñu mën ca ràññee soxna maam Awa Ka sëriñ Cheikh Sidil Muxtaar Ka soxna Moomi Ka soxna Safiyatu Ka soxna maam Anta Ka sëriñ Fàllu Ka ak maam Awa Ka bi mu matee dem kër sëriñ maam Mor Mbàkke Déndey moom sëriñ Moodu Xabbaan Mbàkke nag lañ ko jébbaloon mook sëriñ maam Mor Mbàkke Déndey nag nañ ak njabootam ñu mën ca ràññee nag soxna Mbàkke sëriñ Fàllu Mbàkke soxna Mbeen Mbàkke maam Cheikh Ibrahima Mbàkke doomu soxna Xadi Buso bi ak sëriñ Mbàkke Ka moom sëriñ Cheikh Cheikh Ka di soxna Momi Ka bi mu matee dem kër Serigne Cheikh Ndiaye Mariamu moom soxna Mariamu Mbacke moom Cheikh Modou Moustapha Mbacke nag lañ ko jébbaloon mook Serigne Cheikh Ndiaye Mariamu nag am nañ ak njabootam ñu mën cee ràññee nag Serigne Khadim Ndiaye soxna Loota Ndiaye soxna Mbeen Ndiaye ak Serigne Cheikh Mbacke Gaynde Ndiaye doomu soxna Khady Bousso moom soxna Mbeen Falilu ak Serigne Mbacke Ka moom Serigne Cheikh Ka di soxna Sofietou Ka bi mu matee dem kër Serigne Khadim Mbacke moom Serigne Modou Baara moom Serigne Baara nag lañ ko jébbaloon mook Serigne Khadim Modou Baara nag am nañ ak njaboota ñu mën cee nag soxna Ndey Mbacke Serigne Mouhamed Mbacke di kim faye nag Serigne Mbacke soxna loo doomu soxna Xadi Buso bii moom soxna Mbeen Mbacke Falilu ak Serigne Mbacke ka moom Serigne Cheikh ka di Serigne Cheikh Sidil Muxtaar ka ku ñëpp xam nag ci yoonu murid wi la boroom xam-xam la itim nag ci yoon wi soxna maam Anta Ka nag ma matee dem kër Serigne Mbacke Abdourahmane conférencier nag lañ ko jébbal mook Serigne Mbacke Abdourahmane nag am nañ ak njaboota ñu mën caa ràññe soxna Ummi Moustapha Mbacke ñaari doomu soxna Xadi bu sëy moom soxna Mbène Fallilou ak sëriñ Mbacke ka moom sëriñ Cheikh Ka di sëriñ Fallou Ka ak sëriñ Moustapha Ka yal na leen suñ borom taxawu sàmm leen te aar leen baneen doomu soxna Mbène Mbacke Fallilou bi di càmmiñu soxna Faati Bousso ak soxna Xadi Bousso di sëriñ Ndaam Abdourahmane Fall di kiñ faye nag sëriñ Ndaam Abdourahmane loo bi mu tollee nag ci taxawal kër la ko nijaayam nag sëriñ Moodu Moustapha Mbacke Fallilou jébbal doomam di soxna maam awa moom sëriñ Moodu Bousso Dieng ñetti doomi soxna Mbène Mbacke Fallilou yi njaboot yiñ am ñooy soxna si soxna si nag wéy nag des nag ci dëkk bu sell bi nag di Touba ci loxoy sëriñ Mortala Fall moom Cheikh Ibrahima Fall lamp baabul muridiina di yar di jàng ak nag di tarbiya ba tax na nag tarbiya na itim nag mbooloo mu baree baree baree baree bari defar na itim nag mbooloo mu baree baree baree bari nag ci jigéen aw doxalinam mënoon nañ koo xayma nag ci doxalinu soxna natu Mbàkke di bàjj bàjjanam doxalinu soxna Mbeen Mbàkke ngaabu nag di na moo leen magoon nag waaye téewul ku xamoon ñooñu na xamoon na soxna Mbeen Mbàkke itim nag ci ñooñu itim nag la bokkoon mbooloo mu takkoo takkoo takkoo nag yaroo nañ nag ci biir këram ña fa yaroo nag ñu man cee ràññee soxna ndaxta joom soxna busa xaya soxna caara saar soxna may kamara sëriñ moodu xari ñang nag lañ ko jébbaloon mooy waajuru nag alaaji sëriñ maam may ñang soxna bintu njaay baay sëriñ njaay gede nag lañ ko jébbaloon soxna mbeen njaay xaali doomu nag baay xaali njaay nag bu njaareem la soxna musli galas bintu seex cheikh mamadul faadal mbàkke itam nag soxna mbeen mbàkke moo ko yar soxna maam faati mbàkke galas bintu cheikh mamadul faadal mbàkke te sëriñ xaadim busa nag yoroon ko soxna maam assu mbàkke mi cheikh mamadul faadal mbàkke nag ak faye soxna assu loo bintu sëriñ ndaam abdourahman loo soxna maam xari mbàkke bintu cheikh mourtada mbàkke bintu xaadim rasool itim soxna mbenn mbàkke fallu itim nag moo ko yar soxna saynabu mbàkke moom sëriñ moodu xabbaan mbàkke moom sëriñ mandumbe mbàkke te sëriñ ndaam atta mbàkke dëkkoo ko soxna mbenn mbàkke fallilu moo ko yar soxna aji mbenn mbàkke moom sëriñ moodu xabbaan dem dëkk xayra soxna daba mbàkke moodu xabbaan gaar bu ndaw itim nag la dëkk soxna moominatu mbàkke bintu sëriñ moodu faati xari mbàkke soxna mbenn mbàkke itim nag moo ko yar soxna faati anta moom sëriñ moodu faati faati xari mbàkke soxna mbeen itim nag moo ko yar sëriñ moodu faati xari itim nag tudde woon na ko doom muy soxna mbeen mbàkke moodu faati xari soxna mbeen mbàkke fàllu itim nag moo ko yar ba tey nag ñi yaroo ci loxoy soxna mbeen mbàkke fàlilu ñu mën cee ràññee soxna maam ami abo soxna maam ami abdul fata soxna mbeen mbàkke jiili soxna mbeen mbàkke basiiru min joxoon sëriñ moustapha lakram mbàkke soxna mbeen mbàkke moom sëriñ moodu xabbaan moom cheikh mamadul faadal mbàkke rakkam sëriñ moodu moustapha mbàkke fàlilu tudde woon na soxna mbeen mbàkke fàlilu doom rakkam cheikh mouhamadul lamin baara mbàkke fàlilu Falilu tudde woon na soxna Mbeen Mbàkke Falilu doom sëriñ Saaliw moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde woon na soxna Mbeen Falilu Mbàkke doom sëriñ Jiili Mbàkke Falilu tudde na soxna Mbeen Mbàkke Falilu doom sëriñ Xabbaan Mbàkke moom Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke tudde na soxna Mbeen Mbàkke Falilu doom ci gàttal daal képp koo xam ne ni doomu Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nga tudde nga soxna Mbeen Falilu Mbàkke doom mag ñu bare bare bare nag tudde nañ doom nag soxna Mbeen Mbàkke Falilu ñu mën cee ràññee soxna Ami Mbàkke Balla Joor soxna Assu Juuf moom sëñ Mut Juuf Lambaay soxna Mbeen Faal moom sëñ Abdoulaye Faal Fall Ndar sëriñ Cheikh Mbacke nag bu sëriñ Xaasim Mbacke bu sëriñ Afia tudde na soxna Mbeen Fallu Mbacke doom sëriñ Moodu Jóob Masamba tudde na soxna Mbeen doom muy soxna Aji Mbeen Jóob soxna Mbeen Falilu itam nag moo ko yar Aji Mbeen Caw itam nag fa la yaroo sëriñ Moodu Njaay nag ndëkk si tudde na soxna Mbeen Mbacke Falilu doom sëriñ Useynu Silla moom sëriñ Mapaate Silla tudde na soxna Mbeen Mbacke Falilu doom soxna Mbeen itam nag moo ko yar ba xëy ko jébbal nag sëriñ Abdul Akram Mbacke sëriñ Abdul Ahad Mbacke moom sëriñ Abdul Karim doom nag di soxna Mbeen Mbàkke Fàllilu mu am ñoo xam ne nii itam nag soxna Mbeen Mbàkke Fàllilu nag moo leen yar ba xëy leen nag yóbbu kër ñu mën cee ràññee soxna maam Awa Ndaw moom Baay Seex Ndaw mi ñu joxoon nag El Hadji Mouhamadou Lamine Baara Mbàkke Fàllilu mu meññ nag Sëriñ Cheikh Bamba moom Sëriñ El Hadji Baara soxna maam Awa Njaay mi ñu joxoon nag Baay Sëriñ Buso Ilimaan soxna Ndey Géey moom Sëriñ Mbay Géey nag bu njaareem soxna Mbeen Mbàkke moom Sëriñ Abdul Wudoon Mbàkke soxna Mbeen Mbàkke moom Sëriñ Abdu Xari maam Busa Mbàkke moom moom Sëriñ Moodu Ndaam Ka maam awa faal moom sëriñ Moodu Aminta faal soxna maam say faal moom sëriñ cheikh Khady Guèye faal soxna aji mbeen loo moom sëriñ cheikh loo soxna màggat lay soxna sooda loo ñaar ñii moom ba nëgëni ñu ngi ci kër soxna mbeen mbàkke falilu noonu mu yaree nag mbooloo mu jigéen moomu nag ba xëy nag yabal leen nag ñu dem kër noonu itam nag ni la fate woon nag ay góor nag biir këram ba kenn ku ne nag mën a demal nag sa bopp ci biir góor ñooñu nag ñu man cee ràññee sëriñ Moodu faal bu Touba mosquée man cee ràññee nag sëriñ Fallou Gaye man cee sëriñ ràññee ràññee nag sëriñ Ma Géey Jama itam la nekkoon naaw ñooñu ñu leen tuddal nag mu bokk nag ci ñenn ñi nga xam ne nii nag ñoo yaroo nag ci kër soxna si soxna si itam nag amoon na ñoo xam ne nii ñooy nag ay homme nag de confiance nga xam ne nag foo masaa gis soxna si daa leen gis nag ci wetu soxna si ñu mën cee ràññee nag soxna aji say si la moom sëriñ Mouhamadou Lamine Lamine Baara Mbacke Falilu soxna Ummi Touré yaay soxna Seck soxna Xadi Njaay mu makka soxna Ngaata Seck soxna Mbeen Faal dëkk na Kër Kàbbu soxna Say Njaay di waajuru soxna Assuloo Mbacke moom Cheikh Mamadul Faadal Mbacke soxna Say Jaxate mi bokk ak waajuru sëriñ Mamor Mbacke Falilu soxna Say Ja muy waajuru nag sëriñ Njool Jaañ mi yor barabu Cheikh dul Faadal Mbacke ak soxna Rama Ndooy mi meññi nag soxna May Faal soxna Maam Say Faal ak ñeneen ak ñeneen ñii moom foo masaa gis soxna si gis leen nag ci wetu soxna si soxna Mbeen Falilu nekk na ku jaxas jaxasoo nag ak waajuram nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke moom la waajuram nag njëkk a gis nag ci doom fu ñu tudde sëriñ fàllu nag daanañ ci teg nag galas bàyyu mbeen mu nekk nag koo xam ne nii itam nag sëriñ fàllu daana waxtaan moom nag lu bare bare bare bari reer bi nga xam ne nii nag moom la sëriñ fàllu nag daa jëfandikoo soxna mbeen nag moo ko daa togg nag guddi gu jot liñ tudde nag añ bi nga xam ne ni moom la sëriñ fàllu nag daa jëfandikoo rakk soxna mbeen ba nag di soxna sooda nag moom itam moo ko daa defaree nag këram mu nekk nag ñaari doomu soxna asuloo yoo xam ne nii Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di leen doyloo woon soxna mbeen mbenn nag nekk nag ab taawam mu faboon itam nag ak njabootam jox ko nag soxna mbenn nag ngir mu yar leen jaxasoo googu mu amoon nag waajuram nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke itam nag daana wax dongay tarbi soxna mbenn nag mooy seen bàjjen ñu ci baree baree baree bare nag ci dongay tarbi soxna mbenn falilu nag bàjjen nag lañ ko doon woowee njaboot gi soxna mbenn amitim taalibey mu Mamadul Faadal Mbàkke yu mag yi doomi bàjjen nag lañ leen jàppee saa su ne nag dañ daa kalanteeg ñooma njabootug Sëriñ Tuubaa Seexul Xadiim ñoom ñëpp nag li ko dale nag ci Sëriñ Ahad Mbacke ba ci Cheikh Mourtada Mbacke li ko dale nag ci soxna Fatija Mbacke ba ci soxna Maymunatu Mbacke borom laylatul xadar Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke nag lañu doon xoole soxna Mbeen bëgg na gu ko Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke bëggoon moo tax itam nag ñoom itam nag ñu bëggale ko nag Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke soxna Mbeen itam nag cër boobu itam nag la leen delloo woon képp ku ci nekkoon nag bàjjana bàjjan nag la la daa wooye joxoon la bàjjan di la roy nag képp ku ci nekkoon waajuram itam cëru waajur nag la la joxoon di la xoole Cheikh Mouhamadul Fadal Mbacke sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke fonkoon la daana ko wax ne man nag du ma sa waajur maag yow nag ñoo bokk nag waajur di tax nag sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke nag daa ko wax loolu daa yaroo ndoog moom ci ëttub soxna faati jaxate nag mi meññi sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke noonu ko sëriñ Touba Cheikh Saliou Mbacke fonke woon ni la ko soxna Xadi Mbacke miy waajuru nag sëriñ Cheikh Saliou Mbacke fonke woon itim saa su ne soxna Xadi nag daana jóge këram di seet si nag soxna Mbeen Mbacke soxna Busa Baara moom sëriñ Cheikh Fatak ko Jóob moom itim nag ku taqoo woon nag soxna Mbeen Mbacke la saa su ne itim nag daana ñëw itam nag kër soxna Mbène Mbàkke di ko nemmeeku soxna Xadi Fatma moom Cheikh Mamadul Moustapha Mbàkke ku daa nemmeeku itam nag magam ji la di soxna Mbàkke daana wax ne mu Cheikh Mamadul Moustapha mbakke nag moo ma xamaloon ne ma soxna mbenn nag bu fay gëj mu dul Moustapha Mbàkke itam moo boole woon itam nag Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde Fatma ak soxna Mbène Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde ma nag soxna Mbène itam nag moo nekkoon nag ab jigéenam ba bi maam soxna loo jóob nag di ñëw kër Serigne Cheikh Mbàkke Gaynde faat Fatma soxna Mbène Falilu nag la ko sédde woon lépp itam nag lu xew itam nag ci njabootug maam soxna loo Jóob soxna mbeen itam moo ci daa taxawu nag sëriñ Cheikh ci diggante jigéen nag ak càmmiñam bernde yooyu mu daa yit sëriñ Fàllu sëriñ Fàllu sàkk woon ko ci moom bi mu gisatut Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke noonu itam ni la ko toppoo woon nag ci sëriñ Abdou Lahad Mbàkke ba ci Cheikh Mourtada Mbàkke ni la ko toppoo woon itam nag ci soxna Faatija Mbàkke ba ci soxna Maymunatu Mbàkke am na ko ñuy wax nag sëriñ Maam Mor Say ci ñu woon sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke nettali na njabootuk soxna Mbeen Mbàkke Falilu na sëriñ Abdou Xaadir Mbàkke mosaa mos nag ci reer biñ ko jox du mosaat leneen guddi goo xam ne nii nag daa tombeek sëriñ Mbàkke Madina nag génn àdduna sëriñ Abdul Ahad Mbàkke nag ñëw fa yëgal sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke di ko wax ne nag sëriñ Mbàkke Madina mu baax mi nag moo génn àdduna damaa bëgg nag buñ tollee nag ci waajal ko nag nga ñëw jullee ko ginnaaw bu sëriñ Abdul Xaadir Mbàkke nag taxawoo sëriñ Mbàkke Madina nag ba noppi bi ñu ñëwee reer boobu fa soxna Mbeen Mbàkke indi woo da ca reeraat lii nag sëriñ Maam Mor Say nag nettali na ko sëriñ Cheikh Sidil Moxtaar Kan nag mii sëtu soxna Mbeen Mbàkke Faliilu Tuubaa Cheikh Abdou Khadre nag ma ngi cay yokku ne ndab lii fi soxna Mbeen Mbàkke indi maamam nag lépp loo xam ne nii nag mas naa dal nag askan wi sëriñ Tuubaa nag moom lay toggloo te la muy togg nag képp koo xam ne nii nag jëfandikoo nga ca loola moom dang nga ca mucc moo tax itam nag muy wéy nag di barkeelu nag ci ndab lu jóge nag ci kër soxna Mbeen Mbàkke Faliilu daaree alxuraan ji taxawaloon nag ci kër gi ku ñuy wax nag sëriñ Buu Géey nag moo ko yoroon daa fi jàngale nag alxuraan di ginnaaw sëriñ Buu moom nag sëriñ Moor Kànji nag la fa soxna Mbeen bàyyi woon mu wéy nag di jàngale alxuraanul karim nekkin nag ku tabe moom soxna Mbeen Mbàkke Falilu lim joxe ci dund nag ci dëkk bu sell bii nag di Tuubaa ci ay mag ñoo xam ne nii nag soxla nañ ko kenn xamul nag nu mu tollu bari nañ fi ñoo xam ne nii itam nag am nañ kër ginnaaw yàlla itam nag soxna Mbeen Falilu itam moo leen may kër kër bi mu amoon nag ci Cheikh dul Faadal Mbàkke nag moo taxoon képp koo xam ne nii nag natt nga dëkk bi pàkk yu am solo na nga koy jox te pàkk yooyu itam képp ku masaa jaaxle nag ba ñëw ci moom day yëkkati nag kër nag jox la ko ak tabam nag foo ko takkoon itam nag weesu na commencé nag ñu dem dabi ko fab dépense ba itam nag joxaat ko nit mu toog nag xaar nag waajuram nag Cheikh Mamadou Fadal Mbacké bépp réeroo nag bu masaa am nag ci yoon wi bu ko yëgee nag dana solowu dàllam fexe nag ba ñaar ñooñu nag seen réeroo nag deñ lim nag ci ay nit nag ci dëkk bu seel bi nag di tuubaa kenn xamul num tool mu sa fekke nag dara nag lu ñaaw mag ñi nga xam ne nii nag ñoo fi nekkoon yépp koo xam ne na xew mas naa am nag sa kër ak nag fu kër ga man di nekk soxna mbenn fali lu nag dana sol aw dàllam nag ñëw ca bu dee bànneex bokk koog yow taxawaay nag bi mu amoon niiw na lool itam na ku ko mën a wuutu moo tax nag bari nañu xamoon soxna Mbeen Mbàkke Falilu keroog bi mu génnee àdduna seede yiñ ko defal mooy soxna si nag wuutu ko nag du yomb mu nekk nag ku nuru sëriñ fallu Mbàkke moo xam ci taxawaay ci doxiin ba ci waxiin aqee saayu nag Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke ba am na ku ñuy wax nag alaaji ma yaasin sekk dëkkoon nag Kaolack dafa ñëwoon nag ziyaare si sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbàkke sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir nag di ko xamal ne na dem nag nag soxna Mbeen Mbacke bi mu ziyaaree soxna mbenn nag ba delluwaat ci sëriñ Touba Cheikh Abdou Khader Mbacke mi ngi koy xamal ne daal man soxna mbenn nag ku ma yéem la ndax man bu ma koy xool daal du ma bëgg bàyyi Cheikh moom mu dul faadal Mbacke dong nag la may jox sëriñ Abdou Khader nag di ko xamal ne ni mu ko nuroo nag ci jëmm nag ak doxalin nag ak yaram noonu itam nag ni la ko nuroo nag ci lépp muy doomu Cheikh moomu dul faadal Mbacke nag ak soxna assuloo ci bëgg sëriñ Touba ak doyloo nag yoonu murit ku jaaxle nag mu fajal la ko dem na nag màkkatal mu karama nag ci ndigalul waajuram Cheikh moom dul faadal Mbacke ci atum 19 soixante moo tax nag ay turandoo bari nag ay tur nag yu ñu leen di woowee te wuutee am na ñuy woowee nag soxna mbeen am na ñuy woowee nag aji am na ñuy lool bokk na nag ci ñi fi ëpp nag aw turandoo dafa bokkoon nag ñi te itam nag daa doxe nag doxaliinu mag ñi magi murit nag yu bare bare bare bare bare bari moo xam nag ci axlu mbàkke gi moo xam nag ci cheikh yi ba ci taalibe yi ñëpp nag ñoo am yéene nag tudde doom nag soxna mbeen mbàkke falilu mii moom soxna mbeen mbàkke falilu nag mi ngi génn àdduna ci feebar bu ko tëral nag ci biir kër gi mu amoon nag ci Touba ci bisub samedi ñaar fukki fan nag ci weeru rakk ji gàmmu ci atum 1408 nag ci gàddaay samedi ñaar fukki fan nag ci weeru rakk ji gàmmu ci atum 1408 nag ci gàddaay dëppoog nag muy samedi 12 décembre 1987 samedi 12 décembre 1987 ñu yëgal ko nag ki fi toogoon toogaayu Cheikh Mamadou Fadal Mbacke di rakkam di sëriñ Modou Moustapha Mbacke Falilou yëgal ko itam nag waa waajuram di fi toogoon nag toogaayu sëriñ Touba Cheikhul Khadim di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Ahad Abdoulahat Mbacke mu sàkku itam nag ci beneen waajuram di sëriñ Touba Cheikh Abdoul Xaadir Mbacke ngir mu jullee nag taawub mu dul Faadal Mbacke bii ñu denc ko nag ci wetu maamam sëriñ Ndaam Abdourahman loo ci armeer yu mag yi ay xalifaam nag nii la tëddee li ko dalee nag ci atum 1987 ba le 25 janvier 2020 ab taawam di soxna bu Bousso nag moo fi nekkoon nag ab xalifaam le 25 janvier 2020 nag ba nëgëni ñaareelu xalifa soxna Mbeen Mbacke Falilu mooy ki sëriñ Mor Talla Fall nag fayee sëriñ Ndaam Abdourahman Lo di sëriñ Ndaam Fall ñu koy ñaanal na suñ borom guddal aw fanam nag te wéral ay cëram te yàggal ko nag ci toogaayu waajuróom boobu ak mbooleem nag ñu mu séqal soxna Mbène Mbàkke Faliilu seen baneen doomu ndey la fi bàyyi ko soxna Mbène Mbàkke Faliilu nag am na bis nag buñ koy fàttaliku nag ci luñ tuddee ak màggal bis bi nga xam ne nii nag ci la waajuróom nag feeñ jamono di ñaar fukki fan ak juróom ñaar nag ci weeru rajab di màggalu kazu rajab laataa ñu koy wootee nag génn woote gii moom itam nag daana ko màggal nag ci biir këram daa ci taxaw nag taxawaay nag bu am solo boo xam ne nii màggalu kazu rajab ci ñi ko xamoon bu baax te xamoon soxna Mbeen Mbàkke Falilu xamoon nañ ne daal ku ci ràññeeku la woon ndax bis bi nga xam ne nii nag ci la waajuram feeñ jamono ginnaaw bu mu fi bàyyikoo nag ci nag ba nëgëni njabootam itim màggal googu nag liñ wiitim nag di ko ci màggal di ci fàttaliku waale nag seen maam ja Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke di ci fàttaliku waale nag leen taxa bokk nag ci Cheikh Mamadul Faadal Mbàkke nag di soxna Mbeen Mbàkke Falilu mbàkke ba kam faye woon magam soxna assu mbàkke mbàkke kajoor yàlla nañu ko suñ borom fayal nag te yokk ay leeram taas ñu itam nag ci barkeem lii di jafe-jafe réew mi itam nag yàlla na ko suñ boroom saafara ci darajey alxuraanul karim amin saafara ci darajey alxuraan